بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أمر أن لا نشرك به شيئا وأن لا نعبد إلا إياه وبالوالدين إحسانا والصلاة والسلام على أشرف المرسلين شفيع المذنبين سيدنا محمد وعلى آله أجمعين السلام عليكم ورحمة الله bokk yi noo ngi yëkkati sunuy kàddu ci ndigalul sëriñ Abdul Fattah mi nga xam ne moom la sëriñ bi joxoon ndigal ren ak at ya ko jiitu bu nu àggee fii mu jottaleel ko ay kàddoom sëriñ bi mooy sëriñ Abu Baraka sëriñ baa ngi nuyu bokk yépp ak fu waay mën a jóge di leen xamal ne xamut ba xam namoon ngeen ko waaw walla déet waaye moom namoon na leen lool xam na ne it kaar kaar fu bari mbooloo jóge na fa ndax dégg na baatu ana dëkk sangam bu nekk cant gi nag mi ngi ciy jiital ki nga xam ne moom la yàlla jiital dañu nangu ko lool mu neex lool muy Cheikh Mouhamadul Muntaqa yàlla na ko fi yàlla yàggalte te wéral ko di ko sant ci yaar ba ci jiitu mooy ànd na ko ak moom ndax bii weer wi teroo la fa dem nam fa daa demee ne ko bisub sa wayjur wa day moo dëgmal tàgguwuñ la dañ lay laaj ndigal soo nee ñu def ñu def soo nee bu leen def ñu bàyyi loolu seere sa mooy at yi nga xam ne jiitu na ren mel na ne xat dem mu ca teewut nag am nañu doon ñoromtu ci suuf di ko def ca seeni warab waaye am na ca la ëpp ñoom dañu ne sëriñ bi nee na nañ néggandiku néggandiku nañ wolof nag day wax ne loo gis bopp ba rek boo fa taaxeerloo tuuti da nga gis cat la mu ngi sant sëriñ muntuka bu baax ci jéego yooyu di sant it bokki yi fi ñëw ñëpp ak nu bokk ga mën a demee di tàmbalee ci ñi nga xam ne ñoo gën a jege ci biir dëkk bi di ay woroomi kër teg ca délégué de quartier yi chef de village yi ak maire bi nga xam ne mi ngi nii toog di ko ñaan mu jotlil ko ay cantam ci ña ca war a jot ñëpp su préfet préfet gouverneur ak ministre de l'intérieur ak président de la république di leen sant ci wuy si gi ñu wuy si njaboot gi ci bi ñuy woote dañ ne bàyyiwuñ kenn bàyyiwuñ fenn bàyyiwuñ ñenn loola gis na ko gannaaw bu ko yàlla gisee nee na it sëriñ Mahamadul Mamoun wax na ko léegi ñu fàttaliku ci ñaan alaji Mamor Mbakke moom Cheikh Mahmadul Fadal ndax kat li ko fi jëlee du fi bàyyi kenn kon kenn ku ci nekk fa mu toog xam na na muy ñaane yàlla lam bëgg na ko ca ñaan yërmande sunu boroom ak xéewalam di fekk Alaaji Mamoor ak mbooleem doomi jullit yam fa fekk yépp ak ña ko fa nar a fekk waxtaan wu tënku nag lay doon ci ñaari tomb benn bu njëkk bi ci jëmmi Alaaji Fallu Mbakke noonu la ko sëriñ bi digle ñu tënk rek na nit la woon ku jaxasoo woon ak nit ñi nit ñi nag góor la ak jigéen am na ko ma mas wax ne mag ndaw nag ma ne ko mag ak ndaw itam góor lay doon wala mu doon jigéen néew na lool fooy dem tudd ko fa te gisoo ko ko fa xam wala ko mës a jëflanteeg maamam walla baayam wala moom ci boppam bu fekkee xaw naa doon mag tuuti la ko ko may nag moom moo demoon wuti nit ñi ba demee ba mënutut ñëw nit ñi di ñëw am na benn xakim bu waxoon ne bu kenn ñalgu ñalgu ñi xam yéeg xam nañ ko ñalgu mooy bu kenn di ñalgu doj ju kawe yi ngir nit ñi gis la bu kenn dem di wanewu waaye yéegal yow ñalgul doj yi ngir gis nit ñi xam fuñ nekk xam seen yitte xam seen soxla ba loo ca mën a fañ nga faj ko ca laa tatasallaq qimam aljibaali li yaraaka alaalam lakin tasallaqha li tara anta alaalam noonu la doon def ba mu ca tolloo fu tànk joti dem na fa waaye fu tànk joti wutit bataaxalam dem na fa bataaxal bii ma yor nii eh, danaa si ñëw ci kanam Cheikh Issa Diagne la ko bind waaye njariñam ci nit ñi moom baaloon na ko xel lool ci jéego yooyu may wax yi nga xam ne tànk fay dem yenn yi bataaxal dem fa ndax dafa am benn waroom xam boroom xam bu wax ne ki nay dëgg-dëgg du ki nga xam ne dañ koy laaj mu am te bañ a joxe waaye ki nay dëgg-dëgg mooy koo xam ne daa xaru ba xiif rey ko maanaam xaru ga ma ngi ko jaarale ci ab xiif waaye coono ba mu teg waa këram mooy ba mu ba alal ba fa ba mu fa jógee alalam dañ koo séddoo ku ne lekk ca ba fër albaxiilu yantaxiru juuan li yaqtula warasatahu bi tuxma nay dëgg mooy koo xam ne daa naya naya nay ba du lekk xiif di ko bëgg a rey mu ne ŋaŋ ba faatu ndaxub xiif alal jooja mu doon sakkanal ñu ko fi bàyyil ñu ko séddoo di ko saax-saaxee ba fër mën caa am yàlla musal na ko ca ndax lam doon ji mooy li sax nii rekk waaye ku doylu woon la it ku doylu woon la alxayaatu lan tuctika kulla ma tuxib lakin alqanaata tajcaluka tuxibu kulla ma ladayk wa ka annaka tamtaliku bayna yadayka kulli shay qul alhamdulilah ala kulli shay loolu la dëkke woon mooy daf ne dunduk adduna lu ci nit mën a am munu ca am lu doy ba ne nii laa ko bëgge woon waaye na jàpp ca lam am jàppe ko ne lam bëggoon lépp moo nekk nii mu tiim su boobaa la muy eh, dëkkee mooy alhamdulilahi rabbil alamin ku bàyyi woon xel masal boobu itam la léebu woowu yi waaye ñu wax ci ak ñi gën a doon ay tuut tànk sëriñ bi ñu xam ne yoonu ndaw du gaaw bari na yoo xam ne ndaw yaa ngi ciy dugg te yàkkamti seen àdduna rek moo ko waral te gannaaw àdduna dog doj yuñ taal la di ko baxal nañ xam ne ki jëkka taal ak ki mujj taal kenn du ci ñorle loolu dund na ko ci jamonoom leetar bii ma yor nii Serigne Issa Diagne la ko bind lam ko ca doon laaj duma ci agsi waaye waxin wi dafa daw yaram daf ko ne ku ñuy wax muur xumma moom yi maa ko yónni sudul woon li dënni gor yi doon bàmmeeli sekkare yi danaa la leeralal lépp li muy dox waaye dana la wax lim ci mën a wax la ca des nga xam ko yàlla xam ko loolu jafe-jafe jamono la woon te moo ne moo doonoon doomi borom Tuubaa usallimu alayka ayuha sayidu almuridu alaashiq wal anisu alwaamiq isa jenn waqaana allahu wa iyaka charra kulli insin wa jinn mujibuhu inni fi xayrin wa aafiya wa qad arsaltu murqumma hada taxsilan lima qulta wa sayaqulu laka bilisaanihi anni shay'an hamamtu bihi wa ashartuhu lak wa lawla kawnu suduru al-ahraari qubur al-asraar qubur suduru al-ahraari qubur al-asraar la bayyantuhu huna walakin qultuhu lahu ijal lii himmataka fiihi jiddan jiddan bataaxal bii mor laa ko yónni ngir lang ma waxan li ci ne lépp sax mu ni ko wax bu dañ ni yi doonu toon sekk bam sekkara yi danaa ko leeral bam leer nañ waaye moom mi lu ma xam lu bari dana ko xam dana la ko leeral boo foofa ba mu fay toll teewutoon mu doonoon doomi borom Tuubaa waaye nag nam ko muñe mooy lam amoon rek ca la jàpp kenn ku ne la nga am ci ngay demee jaba kon ñu xam ne ay tolluwaay munta ñàkk jëruta waaxu jërut ñukk jërut lagg waxuma la di xelu euh, bu dee ci ñi nga xam ne ñoo mag ndaw yooyu tuuti ku ne mën naa jàng ci Sëñ Fallu xam warteef xam warteef weesuwut ni ko suñ Moodu Mamun waxee léegi ba mu demee Makka ba nekk Madina leetar ba mu bind rasulullah sallallahu alayhi wa di ko jot li nuyoo xadimu rasul leetar baa ngi nii tur yi ci nekk mu ni su ko jàng ci benn jataay ñaari wet la ñim xam seeni tur yëpp ña nga ca ñim xamut seeni tur mu ne ñi ma xam ak ñi ma xamut ñi ma taseel jamono ak ñee ñëw sama gannaaw jamono waaye saa buy ñaan dana ñaan kenn ku nekk mu tudd sa tur kayit bii ma yor ni mbindum loxooma mi ngi ko bind fukki fan ak juróom ci weeru diggiw tabaski di bisub gaaw waaw tur yëpp a ngi nii yu bari bokk lii moo ko bind ci loxoom yaari wet la kon boog xam warteef weesu wut dem ba gis fu njariñ nekk nga xam ne jël sa ndab tibb rekk moo fa sës nga ne déet am na ñu ma bàyyi gannaaw kat te fa suma jëfandiku bàyyi leen kon naa root rootaale leen kon sëriñ bi nee na ñëpp jàng ci moom it xam warteef te di ko taxawee xam warteef nag kenn ku ne mën na ko tàmbale ci biir këram fexe ba waa këram duñ xaaraani waaye mën naa lawe law ba ci bopp réew mi it président de la république it nee nañ mag ñi mooy seen mag moom itam xam warteef weesuwut jàngaat bind boobu sëriñ Fallu defoon ca Madinal Munawwara fexe ba waa réew mii duñ xaaraani kenn ci lenn donte lu jafe la waaye kem kàttan mën naa am xam ne daal am nañu ne ci suuf ñoo xam ne ku doon def léeg nga waddal ab doom ñu fortaatu it di ci wàññi dara bokk yi mbokkal pas-pas it mu ngi sant ñëpp pas-pas bi mooy lislaam ji rek wala taalibe ki kenn ku ci nekk xam na ne ñam gisut ñam gis gis na leen ñam gisut it ñi ngi feneen ci njaboot gi ñëpp la sant di leen xamal ne nag kóllëre googu suñ Modou moomu doon wax ci suñ fallu mi ngi koy jokk ci ñoom ñi nga xam ne xame gi am na ba noppi mi ngi koy gën a dëgëral ni mu koy gën a dëgërale nag mooy la sëriñ bu mag bi waxoon ci nu ñuy jokke kóllëre sëriñ bu mag bi dana woon ni ñuy jokke kóllëre mooy ni ñuy xeexee ak seytaane mooy dangay def loo xewle wax ko ko te bu la waxee wax ko nga dem ca looy abbu abbu ko ko te bu la abbee nga aal ko looy leb leb ko te bu la leba bu la lebee nga lebal ko boo yoree booy dënk dénk ko méewut nag buy dënk dénk la ndax da koy neex mu dénk la waaye boo ko yàggee dénk ndax ko wóolute gu séq ak sa digganteeg moom mën naa am bis yaramam daw moom mu ne na la dénk buy dem waaye nee na safaan ba mooy xeex ak seytaane bu la ñaanee bu ko may bu la àbbee bu ko aal bu la waxee aw xewam bu ca dem te bu la bu ko wax saw xew booy dénk bu ko dénk te bu la dénkee lànkal kon sëriñ bi nee na mi ngi jokk bu mu kóllëre googu ñi nga xam ren lañ ñëwit ñi ngi ñaan yàlla ñu fekk déwén xew wu am ci diggante bi tañ xewle ko bu mu mën a doon nañ ko dimbale rek mu yëg ndax ku def dara rek am na lu mbàyyi te lu rëy na ci moom lool te sëñ bu mag boo waxoon na ne kat gàtt xel mi ngi tàmbalee ci loolu waay defal nga ne dama ko yayoo ne xiim ne yayoo naa ko ndax maay maay maay waaye danga naan ko jërëjëf ndax la in shakartum la azidannakum di dénk ñépp nag ñu gën a wéetal yàlla te fas ko yéene jaamu te xam ne ku xas ba am doom kenn magatu la boo amee sët moom yaag suñu maam aadama yéen fi yam kepp ay sët dong la fi am nga xam ne caaxaan jeex na caaxaan faaxe góorlu bu baax ba lii ñuy waxtaane ci sëñ fallu ëllëg ki si biir kenn ku ci nekk say doom bañ a doyloo seen baay rek naan sama baay sama baay waaye doyloo bañ a doyloo seen maamit fexe ba ku ne def fi lu ko ay sëtam dina nettali moom itam ak i doomam kàddu yooyu la sëriñ boo xool nañ ko jotali di yóbbante nag waa ay cant ak i nuyoo di ko jaarale ci Cheikh Mouhamadul Bachir mi yore kàddu Serigne Mountakha mu jottalil ko bokk yi nga xam ne yëpp gis na leen ci jataay bi ak ñi nga xam ne démb la ñëwoon ak ñi nga xam ne ba weer wi tara ba fi mu toll nii ñi ngi ñëw nee na nag mi ngi sant bu baax itam euh, dëkkandoom nga xam ne léeg-léeg kenn ci ñoom ñaar soppi ci déey ko ko ndànk bala ko ñenn ñee yëg muy sëriñ Sidi moom sëriñ Abdou Lahad xaritam di wëllëreem léeg-léeg kenn ku ci nekk soppi cin déey ndànk sa morom ne ko kaay bu ko sañee woo bu fekkee sañ sañ bu nekk fa it teraanga moom lu ñuy gis la ak i gët ñu taaj ko ku ne yoor ca ña ko fekkee ca seen wërsëg nekk ca ñëpp yor ca noonu lañu nee na noonu lay dundee moom nii li nii ñu dëndee ay kër noonu lañ ko jaxasooyee ak mbooleem njabootuk sëriñ bi gis na ñëpp njabootuk sëriñ bi nag du ñim jur rek wala ñu ko jural juñ naa ko ci njëlbeen gi waaye fépp fu nit nekk te nekk fa ak jub nee na moom ci jabaru sëriñ bi nga bokk bu ñu demee ci alquran danañ ci fekk laqad jaakum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum xarisun alaykum bil muminin raufun rahim koo xam ne rasulun min anfusikum dendaliwu ma ko nag ak yonent bi de waaye daal kim yónni bari na ñu muy jox fii loxo xam leen ndax diggante Tuuba ak Njaareem lenn la waaye Njaareem ñoom dañ caa xaw ëppal tuuti sax am na ci kook dama ko ne utagul nga Touba këra mu ne ma déet ñun waa Njaareem kat saa su nekk dañuy séentu ne tey ji la waa Touba di fanaan si waaw xam naa bay boo ngeen séentoo di tëri rek waaye loolu du yomb ni ko gone yi waxee mu yabaloon ñu ministre Serigne Dame Diop di jarbaat ci sëriñ bi di sëtub sëñ Balla Coro sëñ Balla Coro nag ak sëñ boroom Touba ku ne xam ne nañ demee ak sëñ Cheikh Coro kon buñ ko yabalee ci bisub sëñ fallu rawati diggante sëñ Balla Coro ak sëñ fallu Mbakke foofu moom tànn gu rafet la daana rafet nag waaye tey moom rafet na lool sëriñ bi ne na ko nuyul président de la république euh, xamal ko ne euh, ñi nga xam ne ñoom lañ ñu booleel fii ñu dëkk ak ñoom mën naa ko tàmbalee ci maire bi toog dend ak man jaar ci sous-préfet mi ma tudd tudd naa leen seeni tur niñ tegalooyee waaye kenn ku ci nekk yàlla def na ak déggoo seen diggante ba lañu toogoon ak ñoom ba màggal gi jibee nit ñi di laaj kañ la dañ na leen déet xamaguñ kañ la kat ndax ndigal lañ cay déglu amaguñ ndigal waaye bañ amee ndigal ba yëgal ko ko bind ko bataaxal mu jaar ci maire dem ci moom te lañ ko ca doon laaj kat mooy loo xam ne waa Kazu Rajab gi mënuñu ko ndax ñii taxaw ñii sol ay mbaxana yu xonq ñi sol mbaxana yu ñuul ñenn ñi sol yu bula ñun mënuñu leen am waaye it ndox amut barab sàngam nit saña yable ñu dem fa defal leen ndox it loolu mu waa Kazu Rajab mënuñu ko waa kas Rajab it bu ñu amee ci njaboot gi ay fajkatit nii mu yaatoo mënewuñ ko noonu nag loolu lañ fa doon wuti waaye yeneen ya ko ya koy rënd yépp moom yàlla def na ko fi sëriñ baa ngi koy sant di fedd li kóllëre di di fedd li kóllëre gi bu baax a baax a baax waaw yi ma sëñ bi wax moom neexut a lim sëñ El Hadj Ndiaye na bas bi ñu toog ci la bokk kon luñ gis la kon daal sëriñ bi mi ngi ñaan sëñ Dame Diop nga jottali ko ay cantam ak i ngërëmam ak fedd li li yàlla boole ndax dañoo séq njaboot gi kenn ku ci daa am wet gum féete njaboot gi waaye mi ngi koy dollee ñaan fa féete njaboot gi it mu gën a woyefal loxoom fan yi ñu toll ñu baree ngi jàmbat njàmbatuk cant rek la ndax lu ñuy jaay dana am ñu yàlla def luñ ko jënde waaye nag bu ñu sañoon it mu wàññi ko suñ doom yi yit fii ñu leen di yabal it ñu fay xamlu ji it sëriñ bi nee na yëg na ñol ñol ji ak ñorumtu bi lum ca mën na ko def lum ca mënut it na ne mënuma ko ndax kat nit war naa jàng yaar xam naa ko ak xawma ko ku ne xawma ko des na ko xamal waaye bu ne xam naa danañ ko laaj te léeg-léeg laaj ko loo xam ne du ko mën a xam war naa jàng xawma ko war naa jàng yit mënuma ko mën naa ko ak mënuma ko suñ la waxee loo xam ne man nga ko nga ne mën naa ko ñaan yàlla mu setal soo ko mënut te xam nga ne doo ko man léegi nga ne du doon léegi fi may jeexale euh, Senghor waa Kébémer suñ mu suñ maamun moom da day wantati ko tudd ay tur waaye dana tudd seeni tur waa Kébémer ak la ko wër dafa mas a dem ñu laaj ko ab tëli laaj ko courant ak dispensaire mu ne leen dispensaire bi moom day daal di sotti bu ci yàlla àndee courant bi ca kanam tali bi it ñi ngi koy seet tali bi moo fa jiitu am na dëkk bu ne fii ci wetu suñu Cheikh Aliou ñu koy wax tey ba ca kan ba mu fa demee lam nam ko waxe bu ma ko sëriñ bi mayoon danaa ko dinaa ca jaar waaye làmmiñam moo meloon noona daa ñëw ne dikkoon naa fi daaw jeeg déggoon seen ndeey mooy dégg ndeey dellu si fi daaw déggaat seen ndeey ren ji ma ñëwaat fi ngir fas yéene dégluwaat seen fas yéene déggaat seen ndeey euh, ku fekke mooma nettali mu ne ko ñu ne ko ab raay lañ bëgg mu ne xaay ñëpp jóg taxaw di tàccu mu ne du ngeen ko am ndax da ngeen fay impo ni ngeen ko wax a fayee téeméeri at ak ñetti fukki at doo ko jënd benn kilomètre raay asalaamaaleykum wa rahmatullah